leen di fay bu baax. yow oto fit. papa ñu ngi lay nuyu. ngi leen di fay bu baax a baax. papa tey mbaa xam nga ne bépp presse en ligne buy yor micro kontaan nañu papa ndax ñun lii la ñu yaakaar. dëgg la dañoo gis ay yenn promoteur yoo xam te dañoo pare pour xeex ñu. te ñun xamuñu ñaata ñii ñaata nit la ñuy dundal. dëgg la xamuñu ñii ñaata nit ñoo nekk seen ginnaaw. tey Sénégalais yëpp pare pour xeex ñu papa yow nga sigil ñu. sagal ñu. yow papa yow la ñuy tiitaroo mais lan ngay wax tey sa bis waaw damay am mbégte lool déjà di wax ne li nga njëkk a wax dafa am solo yéen da ngeen bokk ci ñun ndax fii Sénégal rek lépp lu fi waay mun a am xamuloo kañ nga ko fi bàyyi mën na doon suba mën na doon tey kenn xamul daal na yéex ci barke alxuraan donc tey Euh, mbégte laa am parce que lii daf may fàttali ay bés yu bare ñu doon def bu njëkk ba ma ciy ànd ak nag les grands noms de la lutte yi fi nekk tey te événement bépp moo mun di dëgg parce que ñu ngi doon mbébét nii buñ jógee fii dañuy dem tëggi Tambacounda le 12 juin te boobu tamit niñ ko defee nii noonu ngeen di ñëwaatee yéen ñëpp ànd ak ñun lépp lu war ci yéen dinañ ko def ànd ba fii ba Modou Lo Ama Balde fu ñu munti dem dañ fay ànd dañuy liggéey tey leen wàccuwaay dinañ lañ ko jox te dinaa ànd ak yéen ñu waxtaan ba xam liggéey bi nuñ ko mën a ñoŋalee ba wax dëgg yàlla ku ne gis ci boppam ngeen gis ci seen bopp ñu gis ci suñu bopp lépp jaar ci yoon soo incha allah tey sama xol dafa tooy. ndax dañoo gis ne ñun dañuy xeex. te dafa bari ci ñun ñoo xam te ku ci nekk lii nga yaakaar tey ñun boo leen ñu xeexee ñun fan la ñu jëm dugguñu ci gaal yi. sàccuñu xamuñu beneen métier bu dul lii yow tey nga dooleel ñu papa ñun kontaan nañu. billaahi wallaahi taalay kontaan ak Maguette Sène nga xam ne tey mel nga xam ko xam li ma leen wax dafa upp lépp man ak yéen ba Modou Lo Ama Baldé dinañ ci ànd xam nga li may wax ci presse laa ko waxee donc di ngeen ko tegaat waaw xam nga di ngeen ko tegaat donc ci presse laa ko waxee dina dinañu ànd Maguette Sène nag li nga wax moom c'est la première fois ma tuddee làmb politicien première fois génnal ma archive yëpp musul am 21 ans de carrière Abbé ah, Dianamakun indi naa ko fi Mbaye euh, Vieux Seng Seng tëggal naa ko drapeau parce que suma xarit la Kumba Gawlo sargal naa ko ndax suma xarit la mais c'est la première personne bu ma def ak moom lii man dama am ay conviction ci àdduna et je n'ai pas peur de mes convictions nit la koo xamante ne li mu liggéey ci département bi barewul ñu ko fi def li may wax man xam naa ko et je bien mes mots je pèse bien mes mots te boorewu ci ak wax ju bare moo tax tey ñu bëgg a fësal liggéeyam nit nag du ñàkk ñu ànd ak yow loolu moom ala kulli alin àdduna moo tëddee noonu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ñëpp ànd ñoo nag moom waxatuma la ñun ay nitu kase mais ku ne rek na gëm li nga gëm ne ci ginnaaw bu ñu fàtte benn affaire mooy ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay ak lu coow li bare bare yow mii di wax ak man bu ñu waxtaanee ba sore sore am na fu ñu bokkee deret loolu buñ ko réeree mbir Sénégal dafa tuuti. ndax lan. promoteur yu bi lan nga ci wax. waaw xam nga CNG bi dañ leen di doog installé mënaguma leen jugé bon Bira en tant que nit waxuma ci liggéeyam de nit laa wax nit ku baax la donc buñ ko jàppalee épaulé ko xëy na yàlla mën na ko dimbale mu génn ci mission bi mais na déglu na déglu acteurs yëpp parce que làmb dafa doy waar ñu ngi ciy bëgg a yàgg nag tuuti yàgg nañ ci yàgg ñu ci. 21 ans loo ci def 21 ans yaa bëgg a yàgg bare na luñ ci gis. waaw ñu ci combat royal bi nga xamante ne yaa ko organisé mu dox ci diggante Modou ak Ama Balde ñu defoon face to face ñoom ñaar foo sànni mbàtt mu tak nga fas yéene defaat face to bi kañ nga ko fas yéene def ak yan disposition nga ci jël. ñun daal li ñu jël comme bébét mooy le 3 juillet. lañ ko bëgg a def ci Gambie stade Bakau te ni ngeen ma tiimee micro yi nii noonu la ñuy tiimaatee micro yi foofu ndax yéen ñëpp laa yóbbu bu soobee amul kenn kuy des. yal na ci barke alxuraan. nga bëgg yaa ko xam yal na yow mii lañ war yaay jàppale jeunesse Sénégal. yow mii yaay boo kenn nii def ci say gis ñu benn promoteur bu def. gox bii nga ko andi ñu koy def ñëpp dañuy xool lieu bu baax ñu def ko fa mais yow dong yaa ko andi fii si Nianing pourquoi ça nga choisir Nianing waaw non Nianing moom laa pourquoi pas Nianing aussi parce que Nianing ci Sénégal la bokk ah. ci Sénégal la bokk tant que ñu ngi privilégié ville yu mag yi bàyyi yu ndaw yi rek Sénégal du avancé donc fépp la ñuy dem ah, ñun dinañ dem fépp ci suñu mébét combat bii nag da xaw a mag pour gérer ko du yomb moo tax maa ngi waxtaan bëgg a biy tëgg làmb bëre simple yi ñu def collaboration man ak moom parce que yàlla boole nañu man ak moom ñu am vraiment relation yu baax pour ñu ànd mu épaulé ma ci mbàppat yi ñu ànd liggéey ko waaw yàlla beneen leen dara tawul yàlla na yàlla jàppale kontaan naa ci yéen